que tout simplement frère am da koo daal di rek euh, demander ngir mu nangul ko ko euh, pour nag jàppale ko mu mel ni kon nit ñi parfois dañuy bëgg nax seen bopp wala nag dañuy def ay idées si ñoom alors que loolee amul kon yaakaar naa nit li la war mooy nga simple daal di xam ni nit kese nga waaye nag waroo benn yoon euh, di glorifier wu wala nag di vanter wu ci loo xam ni sax amaana demeewul noonu ñu jàll ci Mariama Mariama nag moom gis nañu nim na rek ñoo xam ni ñu ngi koy wër comme ni ko yaayam waxee woon te li ñu nag mooy heureusement ba li la te fi yàlla di dogalee mbindee fekkeewu ko euh, ba ciy mën dara euh, ba tax na Mariama ki nga xam ne mi ngi ko doon toppalu euh, fexe na rek ba gis ko ba tax nag mu daal di koy rëcc loolu nag yaakaar na mbirum yàlla la te it ku nekk yàlla sa xol rek la lay fay te ku ne xam na ni Mariama xol bu rafet la yor waaye yaayam itam dafa baaxoon ci moom kon yaakaar naa ni am na ñoo xam ni soo leen bëggee rek faagaagal yaakaar naa yaay sonn rawatina nag koo xam ni yaayam da ko liggéeyal ñu jàll xaalis fu mu teew rek yaakaar naa ne ah, xel yëppay daal di nësax rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk dans le besoin ñi nga xam ne dañoo soxla alal ndax seen dundu métti na loolu nag tax na euh, genre yooyu situation yooyu bu amee dañuy neex ndax euh, dañuy yomb ndax ku ñëw wax ak ñoom rek si mbirum xaalis dañuy daal di accepter aussi facilement euh, ndax comme li ñuy wax rek nit booy gore itam day fekk nga gor ci dara kon yaakaar naa dëkk bi méttaayam métti na métti boo xam ne alal boo ko amul nga xam ni doo mun def dara bu nit ñëwee di waxu alal jaral yaakaar naa ni boo deful ndànk rek euh, da ngay euh, neexal ndax ndax su boobaa xalaat sax doo ko mën a def ndax doo gis rek lu dul alal boobu te it nag doo xam doo xalaat lu dul alal boobu su ma ko jotee naa ci réalisé lii naa ci réaliser lii loolu nag euh, tax na li nga xam ni ñoom ñooy yaayu xale yu jigéen ni association bi nga xam ni ñoom ñoo ñëw di leen ndax pour dimbale leen te loolu lépp amul ndax li ko waral mooy seen doom yi rek la ñu soxla ndax ñoom trafic d'enfant la ñuy def muy loo xam ni kon yombul benn yoon itam nga rëcc si ñoom ndax seeni pexe dafay jub te nag pexe bu ñu lal pour nga euh, mucc ci rek du dal di euh, yomb ñu jàll ci beneen séquence euh, lu ñu naan nag le monde en l'envers lool nag moom moo am ndax bu ba école ni ñi waxtaaneetuñu seen cours yi waxtaaneetuñu nan la ñu def ba am moyenne waxtaaneetuñu kan moo ëppale moyenne ci devoir bi kan moo ëppale moyenne ci composition bi waaye dañuy toog di waxtaan ay mbirum sexe ay mbirum virginité nekk na loo xam ne lu doy waar la waaye nag ki nga xam ni moo di pervers moom bi mu leen déggee te du deñ ndax mooy li nga xam ni euh, ku nekk da ngaa war a téye sa bopp euh, ba mariage ndax yaakaar naa ni euh, di foye sa bopp pour pare nag di jëndaat ay ndaw nekk na loo xam ne yaakaar naa ni lu doy waar la te it nag loolu tax na yu bëri daal di ñeme ndax ku ci xam ne rek boo foye sa bopp bis boo amee jëkkër mën nga lijjantiwaat ndaw boobu nekk na loo xam ni kon du def lu gën a yàq ay valeuru xale yi nekk na loo xam ne lu doy waar la te nag day gën a may xale yi fit muy loo xam ni kon yaakaar naa ni war nañ ko fee mën a jëlee ndax nit boo fooyee sa bopp war nga am sax euh, dignité wu toog euh, xam ni fooyee nga sa bopp euh, waaye nag di ko jéem a corriger di jéem a jënd ay ndaw nekk na loo xam ne lu doy waar la ñu jàpp jàll ci séquence li ñu naan nag nit nëbbatu baaxul nit lépp looy def rek war nga ci dëggu war nga ci rek and ak ay nit waaye sama mbokku jigéen ñi ku ne xam na ni bu xaalis amee duñ bëgg seen jëkkër yëg ko waaye duñ bëgg kenn yëg ko ndax dañuy bëgg buñ ko encaissé daal di koy lekkal seen bopp tey nag femmes yi nga xam ni ñoom lañ jël seen doom yi leen dal rek mooy euh, ña nëbbatu ndax tey alal bi nga xam ni moom lañ yaakaaroon ni dinañ ko jot bëgguñ ko woon partagé ak kenn euh, ba tax na nag ñu daal di euh, nëbbatu seen jëkkër nëbbatu ñëpp kon tey yaakaar naa problème amee nañu si wéet te it nag duñu ko ñemee wax kenn ndax ba ñuy dugg ci mbir mi waxtaanuñ ci ak kenn loolu nag yaakaar naa war na yee nit ñi bu baax a baax war na itam tax nit ñi am ngor ci xaalis te xam ni xaalis seytaane la te nag xaalis boo liggéeyul yombul rek nga amee ko noonu kon même nit bu ñëwee ji la di ni am na euh, forcement lu nekk ci ginnaaw ndax nit ñi duñ jël seen xaalis di ko joxe rek ci euh, noonu ñu jeexal ak euh, Birima ak jabaram ñoom nag gis nañu ni bëgguñu am doom li ko waral nag mooy seen ay carrière la ñu jël daal di koy teg ci kanam mu mel ni kon jeunesse bi léegi wala génération bi léegi ñoom sëy yaakaar naa dañ koo rek banaliser waaye itam mbirum am doom dañ ko rek daal di banaliser ndax bu fekkee ne que yow carrière moom ngay jël teg ko ci kaw njaboot nga xam ni sant ci kaw njaboot nekk na loo xam ne lu doy waar la euh, ba tax papaayu jabaram nga xam ni moom mag la bokk ci beneen génération bi euh, lim leen di digal rek mooy ñu am ay doom ndax ku ne xam na ni doom alal la euh, rawatina nag muy ndénkaane yàlla muy loo xam ni kon lu am solo la ci sëy ndax yaakaar naa sëy bu ci doom amee du def lu dul gën koo dëgëral du def lu dul gën koo neexal waaye nag yaakaar naa birima moom waxul li am lépp ku ne xam na ni birima sëy bi mi sëy neexu ko peut-être loolu moo tax moom d'accordul am doom alors que nag jabaram